ah présidentielle bay wax naan war nañ ko mën a dàq ndax dëkk bi jaxasoo na hmm. am na ay euh, dënn yu tàng ak ñoom seen ñu gis ci ay kilifa yu génn ku mel ni euh, Boubacar Camara. Mm. wax na ko ku mel ni euh, Souleymane Jules Diop itam gis nañu kàddu yi nga xam ni yëkkati na ko jëm ci fànn boobu lenn rek merci beaucoup Kounta ba nga ñëwee ba taxaw sama kanam bu <laughs> seetlu sa café ndax ñi di comprendre kii romb ral la. ndax loolu bee rafet xol bee rafet yéene bee rafet. Pape Ousmane ak baax projet de décret. à baax Euh, corps <laughs> électoral euh, waxtaane nañ ko ca euh, conseil des ministres bi weesu ñu daal di koy adopté moo tax ma naan la ñu doon yaakaar ni report dana am ak yaay aju du am ñoom mën nañoo xaar xëy na beneen report bu bokkut ak élection présidentielle bi ñu jëm day Arame Touré comme ni ñu ko waxee effectivement décret bi nga xam te ne moom mooy convoqué le corps électoral ngir jëm ci élection présidentielle yi deux mille vingt quatre yi jot nañ ko adopté démb ca conseil des ministre comme ni ñu ko waxee euh, euh, euh, loolu nag li muy firi mooy ni décret boobu buñ ko xaatimee ci kàttanu yàlla date bi ñu jàpp dara du ko soppi tey daañu amal ci bis boobu élection yi nga xamante ni ñu bëri moo xam comme ni ñu ko waxee sànq Boubacar Camara Souleymane Jules Diop am na ñeneen sax xëy na ñoo xam te dégguñu leen la ñu jàppoon mooy ne contexte bi chargé na bëri na coow ci diggante acteur yi ba sax. Euh, njort nañ ni dal mënul am ñu jàppoon ne xëy dañ ko dàq am ñeneen ñu doon wax ni sax pourquoi pas euh, deux ans yoo xamante ni war nañ ko mën a bàyyi njiitu réew mi ak yeneen yu ko niru yooyu yëpp lañ ne jamono ji féete nañu ginnaaw ndax acte ba euh, jëmmal nañ ko ni ki démb ñuy xaar <laughs> ba yegg ci jàmm Pape Assane Seck maître dalal na sa xel loolu je pense que jeu normal u démocratie calendrier républicain bi Sénégal fii en tout cas ci li ma mos a xam en tout cas depuis ma juddu fii ci Sénégal di fi dund mooy euh, mosuñu reporter élection présidentielle euh, yàgg nañ ko njort di ci ñaaw xel di ci am xel ñaar plutôt euh, finalement donc bu ñëwee dëggal ko Euh, loolu mënuñu lu dul rafetlu ko par contre comme lu ma wax rek ça ne règle pas le problème mm-hmm. moom mooy élection yooyu ci yan anam la ñu nar a choisir ña nga xam ne ñoo fay nekk man lu may ragal moom mooy ak système mu parrainage bi bu dee ñun opposition bi taxawuñu à temps ñu leeral mbir mi man lu may ragal moom mooy finalement ñu teg ñu tegal ñu benn euh, tablet bi nga xam ne koo ci indi rek Macky Sall nga indi waat. mooy ni du ñu weesu li li ñu waxoon deux mille dix neuf. mën na weesu. ah c'est pas ça. mais hmm. dama jàpp ni tey. waaw euh, euh, dama bëggoon lim bi d'abord laata moom ñu muy junj. Mhm. ni ñoo fiy des. Mhm. lim bi ak ñan nga jàpp ni ñoo fiy des. ah ñi maanaam bu conseil constitutionnel publier list bi. Mhm. nga ne xëy na ña koy ña fay gën a feeñ mooy ñi xëy na comme ni ngeen koy waxee wuyu woon dialogue ba. ña ca demuloon xëy na amuñu chance. loolu ngeen jàpp ni xëy na mooy tablette. non pas forcément pas forcément. Hmm. waxewuma ko ci sens boobu que je pense que Sénégal quand même c'est une démocratie am na yi nga xam ne moom c'est tellement gros mën nañ ko dégg ci yeneen réew mais mënu fi ah, par contre Sénégal fii Sénégal moom laay wax souvent ñenn ñi le complot il est toujours institutionnel. Hmm. c'est-à-dire du ñu ñëw def benn complot bi nga xam ne dañuy ñëw. comme ci yenn dëkk yi nga xam ne euh, yàgg nañ fa dem di défendre les de l'homme da ngay ñëw defuloo dara euh, ñoom sax seen bopp xabuñu lu tax ñu jàpp la dugal la ci kaso mais ñoom dañ koy yoonal c'est-à-dire dañuy am fuñ la jaar gis nga même ci affaire Ousmane Sonko bi jàpp nañu benn situation yóbbu ko ci justice teg ko ci rang mën nga contre euh, yenn situation yu tout ça mais au final ñoom dañuy nekk ci siège bi loolu laay ragal aussi ci parrainage bi ñu am fi benn complot institutionnel moom mooy lan moom mooy tey ak système bi nu mu demee parce que ñu xamuñu ci dara tey mënuñu la wax logiciel bi fii la jógee est-ce que Sénégal ñoo ko defar. Mm-hmm. est-ce que beneen puissance étrangère moo ko defar. c'est dangereux en plus. est-ce que ñooñu tey bu ñu ñëwee ñu jël données personnelles yu Sénégalais yëpp. ñu dugal ko ci biir ban utilisation lañ ci mën a def suuf. et que tey aujourd'hui mais nag man la question des données personnelles man des damay reetaan ah c'est problématique je vais vous pourquoi damay reetaan lu taxee ñun ici

Euh, tey boo jëlee fiisu parrainage euh, daanaka ci nga xam ne moom mooy lire fiche bi peut-être Sénégal nekkul Nigéria wala nekkul yenn dëkk yi. mais à partir de la gars yi mën nañ dugg sa vie yëpp. Hmm. tey ku ci nekk ci ñun boo demoon woo orange wala wéeb wala yenn affaire yooyu. lan lañ lay wax ñun suñu bopp ñoo ko. non c'est pour tey dañuy exposer des millions de Sénégalais en rendant. public comme ça. mais ils étaient déjà exposés. mais ils sont pas si ils l'étaient. numéro pièce d'identité. lu lay wax ni parrainage bi sauf que exemple bi nag du benn Bachir. ils étaient exposés xoolal Sénégal fii. Mhm. da ngay am compte Telegram. Mhm. vous êtes dans mon répertoire. Mhm. dès que vous êtes sur Telegram. waaw ah. moo on fait savoir que. waaw message mais alors mais est-ce que loolu bay na la nga xam. suba kat de euh, sama numéro pièce d'identité. est-ce que loolu permettre na la nga xam sama date d'expiration bu sama pièce d'identité CEDEAO est-ce que may na la yeneen élément est-ce que loolu permettre la nag nga woo benn opérateur mu wax la jox ma numéro pièce d'identité bi nga seconde ko ci suma WhatsApp pour jox ko amoo ko mais là on a tous ces éléments là aujourd'hui ñun ci Sénégalais yi la plupart ils ont porte-monnaie ci seen téléphone d'une certaine manière boo wootee opérateur di mais yi laaj nii <laughs> moo moo tax ma lay daan Sénégal heureusement du Nigéria wala yeneen dëkk yi parce que di ngeen fi gis njombe bu grave c'est-à-dire dina dina am ñi nga xam ne gis ngeen ko le dark net gars yi lu ñu fay jënd. Eh. dañuy jënd ay données personnelles rek. Hmm. <laughs> jox ma turu kii ci yow saa gars yi defar ay pièces defar ay kii def lu leen neex d'une certaine manière. moo tax ma ne question bi non seulement loolu jotuñoo ko sax posé devant la CEDEAO mais day exposer les Sénégalais d'une certaine manière et surtout le fait ñu rendre public parrainage bi yow boo nekkoon suma société ma nekk candidat euh, nga pare ne keneen. boo moytuwut suñu relation mën na commencé yàqu d'une certaine manière nga nekk fonctionnaire ñu xam ne kii nga pare ni parce que formulaire yi day circuler te te bu leen fàttali yéen a ko doon wax état raison d'état mais état tey suba euh, mën na ñëw créer benn fiche bi nga xam ne da koy permettre mu am benn cartographie sur ça y a aucun contrôle personne na nous dit que délai de conservation ou parrainage bu 2019 bi lii la Mm. autorité bi moo ko détruire effacé nañu ko benn deuxièmement non mais je vous explique personnel la la la durée de vie de loi non la loi sur l'accès à l'information mais l'accès à l'information tey logiciel bi kan moo ko defar yoo xamuloo ko man xaw ma ko euh, suñuy passeport ay malaisiens ñoo koy defar xam ngeen ko tey yeneen puissance yi dañuy accéder ci suñuy données yépp tey. est-ce que vous pensez a se a ma jeexal ma jeexal. parce que ni moom suñu données mënu yooyu dama ci xam yu bëri. mais parce que moi j'ai travaillé ci beneen aspect dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. ci yenn aspects yi xam ñi nga xam ne ñoo yor yi nga xam ne. Euh, ñenn opposants yi xamuñoo ko ma xam ci lu bëri de part suma truc mais du ma dugg ci yenn affaires yi comme ma ko waxee quand on aspire à être un homme d'état dañuy savoir raison mm. garder dugg ci yeneen mm. affaires yi par contre dama lay wax li ma lay wax nii te trouble nga yor fiche boobu t'as les noms t'as les euh, t'as tous les trucs tous les mm. éléments d'une certaine manière ça peut aller loin et que loolu moo tax ma ne tey système mu parrainage bi pare wuñu ci pare wuñu ci il faut le reconnaître d'une certaine manière le fait ñu reconnaître suñuy limite saa nous permet d'avancer loolu moo tax France teg ko tey nekkul far fii des fois aussi Sénégal loolu moo fi metti parce que dañuy far de trop mm-hmm. du ñu demee suñu xel d'une certaine manière mm-hmm. soit da nekk fii wala truc et tout ça foog ñu bàyyi loolu ñu jàpp ni lii tey ça nous expose mm-hmm. su may frère su may sœur pare ne nañ seen tur a ngi ci biir n'importe quel qui ci y accéder un pirate malveillant mën na dugg craquer sax système bi ci boppam parce que day yóbbu clé USB am de waat bu ñu waat dem kenn xamul. mais mais maître eh, eh, eh, Edouard Thierno s'il te plaît maître hmm? hmm? Thierno s'il te plaît maître nga posé nii dafa sori parrainage Thierno s'il te plaît nga boo jëlee opérateur bu mel ni Orange ñu bëri ñu fay liggéey ay anciens services secret France lañu doom Michel Roussin lui-même qui fut le directeur patron de la DGSE direction générale de la sécurité extérieure bu France day xool seen conseil d'administration ak seen agent yu bëri donc foofu noonu pour man question boobu noonu pour établir articulation boobu du yomb quoi. maître hmm? damay non xam nga tey lan mooy suñu faiblesse économique pour jox leen benn exemple. Hmm. Euh, tey boo jëlee dëkk bu mel ni Sénégal. Afrique la plupart euh, suñu communication yu bëri ñu ngi jaar dans le sud de la France bouquet Afrique. donc tey c'est très facile. que n'importe quel nit nga wut. souvent dañuy dégg euh, dans les facs euh, wala yenn instituts des gens boo leen waxee ñu ne je suis étudiant en intelligence économique euh, wala yenn chercheurs yi toi ça vous dit pas absolument rien du tout d'une certaine manière mais c'est quoi c'est le renseignement hmm? c'est le renseignement voilà donc tey boobu ma waree négocier ak yow ay contrat hmm. yi nga xam ne ça concerne wala ay nit di xeex samay intérêt dëkk d'une certaine manière mais tey am na ay service secret yi nga xam ne seen liggéey guddeeg bëccëg mooy pour xool kan moo mën a gàllankoor su may intérêt à l'étranger et il le monitoring il le suivi c'est de la veille c'est de la veille et que ñooñu tey ñoom am nañu capacité souvent mën nga ñëw fii Sénégal nga ne état Sénégal moomu complot fekk état Sénégal sax complot wul. oui mais ña la complot ñoo nga bitim réew. parce que dañuy préserver seen intérêt. boo xëyee yow sa téléphone. nga dugg internet. ñun au réseau bi ñuy utiliser bitim réew lay jaar. ñoom ñoo ñu koy jox nga ah loolu dëgg foofu affaire Kabir mhm. ñu bëri dañ ciy wax nii. waaw bi mu amee dañoo créer benn mhm. site. Mhm. tuddee ko Warylix. bon bëgguma ci ko ma dóor fetal quoi. mais y xam nga après gain bi ci la. Mhm. voilà voilà boo a a. dóor voilà xoolee par exemple sa téléphone moom ngay utiliser. sa carte bleue tey euh, ñun euh, correcté wuñu visa la plupart du temps visa mm-hmm. dañuy jaar ci yeneen opérateur mm-hmm. ñoom ñoo lay ci mm-hmm. lépp loo fay loo retiré mën nañ ko xam d'une certaine manière ah, donc finalement mais c'est Tracfin ça c'est c'est c'est pas Tracfin c'est non non c'est pour quand chercher à comprendre euh, un peu le financement le financement c'est pour te dire que tey dañu nekk ci benn société bi nga xam ne puissance yi am nañ possibilité tey enjeu la données personnelles yi tey enjeu de pouvoir boo ko xam donc moo tax ma ne la ñun waruñu jël suñuy. mais nag mais mais fils de parrainage. Ah, Abdoulaye mais balancer comme ça. Abdoulaye sans le parrainage nous citoyens sénégalais de façon générale. avons pris nos données personnelles dugal ko dans le big data comme on dit. mais waawee le débat boobu ñu sur le avec le parrainage. ça devient beaucoup plus immédiat. et les données sur le ah. fils de parrainage là ne sont pas déjà yow booy booy booy booy booy ubbi. Edouard Edouard Bachir Bachir si c'est-à-dire que comprendre naa fi ngay waxee par rapport à nos données mais am na limite ce qu'il dit américains yi lan la ñu toppee Edward Snowden. données question de données bokkul c'est pas la même chose. il a divulgué des données divulgation de données ak données nga naan ma divulgation de données divulgation ak données mais yow tey jii nii Pa Pa Assane boo toogee biir rédaction euh, nu mu tuddati sans limite bii. Hmm. ñu door a def yi aram kenn xam ko nga génn wax ko tu l'as divulgué. c'est ça la différence. foofu la mbir mi nekk attention. je parle de sécurité. mais sécurité. non moi je ramène la chose à un niveau pour que nit ñi xam la lañ bëgg a wax. des informations lan la du ay données. divulgation bi lañ la. du ay données informatique. données informatique ay données ñu new ci. au cas où je dis n'importe quoi. non xam nga parce bëgg a wax ah, nga baal ma rek ma jeexal li ma bëggoon a wax moom mooy assemblée nationale fii. tey léew parlementaire waroon nañu xam logiciel bi nga xam ne moom mooy contrôler parrainage ñu war ci dugal données personnelles u sénégalais yépp mais c'est grave ba pare dañ ko war a xam waroon nañu xam société moo nekk ci ginnaaw ban kenn moo ko commercialisé yan informaticien ñoo koy manipuler ñooñu tey lan mooy seeni lien avec euh, le pouvoir en place est-ce que ñooñu am nañ ay connexion est-ce que nekkuñu en situation de conflit Euh, d'intérêt et euh, donc yooyu dañ koy dañ ko war a def dañ ko dañ ko war a xam. kon l'opposition parlementaire liggéey bi ñu waroon def ci pàcc boobu dafa des. non def nañ ko ñu ngi koy réclamer F24 ci premier point de revendication la mais gouvernement bi ci boppam moo nangul partagé. xam nga ñun aussi ñun suñu biir la ñu ni neen la d'une certaine manière. bu dee ñun dañuy ñëw ñuy collecter suñuy données mais warta am secret sur origine bi. Oh. ak kat moo koy commercialiser ak fan la jógee. d'accord. on est dans l'opacité le flou dans la merde xamuñu xew insécurité totale.